الحمد لله القائل في محكم تنزيله المستحيل في حقه التبديل والتزوير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى wa rasulil mujtaba sayidina muhammadin sayidil awwalina wal axirin man xuutiba bi annaka bi an bi innaka la ala xuluqin azim wa ala alihi tayibin altahirin wa saxbi alguri almayamin wa man ihtada bi hadihim wa stanna bi sunnatihim ila yowmi ddin wa baad ayo saadatu alkiram duyuufa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alladina ataw min kulli fajjin camiqin ila hadihi alxadrati alibrahimiya xadrati xabibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh saadatul ajilla ismaxuu li bitarxiibi bikum kulla tarxiibi باسم رئيس أنصار الدين أولا وباسم الخليفة الموقر سيد محمد الماحي ابن الشيخ إبراهيم خادم الأمة حفظه الله ورعاه في صحة وعافية وأمد في عمره المبارك وزاده بسطة في العلم والجسم ونعبر لكم an ilchukri alxaalisi ala ma taxamaltum min machaaqi alsafar waltanaquli walcaqabat alkacira ixtifaan biqaidikum alacla albaabi almaftux likulli man yuridu alwuluuja ila xadrati alxabib almustafa alcheikh radiallahu anhu radiallahu anhu cheikh ibrahim radiallahu anhu wa ixtifalan bihada alxadasi alcazim zikra mawlidi man arsalahu allahu rahmatan lilalamina fa kanat bicatuhu walkitab alladi unzila ilayhi min rabbi alalamin axir alrisalati alxaalida huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu ala ddiini kulli walaw kariha almushrikin saadati alajilla لا أطيل عليكم لأن الوقت ضيق جدا وهذه الكلمة نقو نعبر عنها للترحيب بكم كل الترحيب ونسأل الله تبارك وتعالى من بركة ونتوسل ببركة من سمي بهذا الحفل العظيم wa huwa ra'su sahbi cheikhi sayidi abi bakrin al-musanna an yu'azzima allahu hazzana min anwaari nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa yaj'alana min xaasati al-xaasa min ahbaabihi sallallahu alayhi wa sallam innahu waliyyu dhaalika wal qaadiru alayhi wa maa dhaalika ala llaahi bi aziiz mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di ndokkeel ci turi rais ansaaru diin waaye ci turi itam rais haadihi lajna muy cheikh ahmed bukaar zaadahu llahu bastatan fi lilmi waljismi wa ataala fi umrihi almubaaraki ñu ngi leen di ndokkeel ndokkeel gu mat ci jotaay bi di jeetal ci ndokkeel googu al cheikh Mouhamad al Mahi ibnu cheikh Abi Bakrin al Musanna mi nga xam ne sharafana bi xudurihi ma ixwatihi al kiraami al mubaarakin Seydi Ali ibnu cheikh Abi Bakrin al Musanna wa Seyidi Alxaaji Mouhamad Zeynab ibnu cheikh Serigne Bay zaadahum allahu sixatan wa aafiyatan wa ataala fi amaarihim almubaaraka ñu ngi ndokkeel ñépp di ñaan yàlla defal ñu tawféex ñu ngi jottaliku ci ñaan googu ci barke ki ñu tuddee jotaay bii muy sëriñ bay nga xam ne Baay waxoon na ne mooy boppi ay saxaabaam kon comme waxtu wi dafa gàtt nag te lii baat la yoo xam ne dañ ko doon wax rek pour jotal maanaam ndokkeel leen ci seen teewaay gërëm leen ndax waxtu wi xat na lool bu ngeen ñëwee teew teew bu rafet bii mooy ne dëgg-dëgg xam ngeen darajaay ki nga xam ne moom lañu jagleel bés bi muy Cheikh sëriñ Baye ñu ngi leen di gërëm ci lool di ñaan yàlla defal ñu tawfiix di sàkku ci yéen itam ngeen ñaanal ñu ñaanal itam Cheikh Ahmed Boucar mi nga xam ne depuis mën naa wax na ay weer a ngi nii ci lii rek la nekk mooy yitteem yàlla dolli ko tawfiq yàlla dolli ko ak jàppandal ma dalika allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu Cheikh Ali eh, kàddu yi eh, matale nañ te rafet nañ tey joti nañu itam euh, dëgg-dëgg euh, kontaan nañ bu baax